insouciance moy créer danger bu nek xam nga nit do tok mbir xew nit ñi di tit ku nek di wut sa bop sa sa say je m'en fous sa bop en danger di sa askan en danger. Li du xarkanu Medina. Medina. kame ko ni c'est des références c'est des idoles ay ñu bax combat bi ñun ñii di doomu Médina xaaratuñu ma Samba xaaratuñu ma Demb ñun ñoo dem léegi vers euh, nos responsables xamal leen ne leen carrément il est temps gars yi ñun si wàllu boppam ñu jug jàppale leen ci wàllum liggéey bi. état bi def na lépp lu mu war nag pour jëlee fi corona Covid 19 ñun di euh, ay jeunes yoo xam ne ñu ngi génn heure couvre-feu bi nañ ko bàyyi parce que ñàkkamti nañ corona bi juge fi ñu commencé waat suñuy activité ñu ngi jégalu bu baax. premier ku ñuy jégalu mooy le ministre de l' intérieur. jégalu tamit le commissaire de la 4e arrondissement Médina. remercier le ministre Seydou Gueye moom mi ñu accompagner pour le moment ci lii di woo bépp leader politique muy politique muy homme d'affaires ak koo mën a doon bépp doomu Médina ngeen ñëw ngeen jàppale ñu ñun suñu wàllu bopp ñu jël combat bi en main. nekkee ni teguñu ko ci yoon.

bu ñu mënee di takk ay masque nañuy takk ay masque donc nag nañu aar suñu bopp aar suñu njaboot aar suñuy doom